juddu yonent ñépp ko waroon a màggal ndax lu yàlla amal ci moom la ko jaarale mu am suñ boroom daf ne moom dafa nekkoon ndàmb mooy trésor boo xam ne kenn xamu ko ba mu bëggee ñu xam ko la bind xaqiqatul muhammadiya ëpp na doomu aadama ndax xaqiqa boobu suñ borom bu ko neexoon mu def ko ci géej gi wala mu def ko ci garab yi wala bàyyi ma yi wala doj yi ndax ñoo ñëpp mbindeef yàlla la waaye nag ci doomu aadama la ko def looloo tax doomu aadama gën a kowe ci lépp lu yàlla bind gën cee tedd wala xat karam naa ni aadama bu ko alxuraan di junju loola la ca jëli waye du dund bu neex ak lek ak dedet do ma aadama fa tedd ngir yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne ne ci mom lañ ko def kon war nañu wax sant dañu fuñ tollu di wax alhamdullilah rabbil alamin bi ñu yalla defé ñuy doom adama ñu bokk ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam bind amna sufyan sufiyanke yo xamne ci lañ dëgg sax bané doom adama kenn du ci dem sawara am ñu ne ñeñ cay mbugal itam duñ ca béel safara dana gent am ñu wax loolu waaye imaam xalifa radiallahu anhu bés bi muy dem yoor yoor bi ba mu ootee mu am ñu daje ci yoon ci ci doom yi mu dénkaane li muy dénkaane téere bii ñu jàng fii bokk na ci lim dénkaane nañ ko móolal téere mi ndax booba uqudul jawar kenn moolagu ko kon Sidi lamin yàlla na ko yàlla fay te yokk leeram moo xar tànkam ñu mool ko bokk na ci lam wax mu ne yàlla may na ma loo xam ne xamal ma loo xam ne bu ma neexoon kenn du dem sawara waaye rus naa sama borom ne la am laan na jahannama may fexe lu ko dindi waaye nag waxuma sama taalibe de waaye ku dégg sama tuur sopp ma man garantir naa ne sa yaram xaram na sawara kon ñun war nañoo sant yàlla ndax ñoom seen liggéey yépp mooy foqar ñi doomu aadama ci pangam iblis dugal ko ci pangab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii ñuy def nag ci li dundal réew mi la bokk li fi indi koomi pétrole bi ci la bokk li fi indi gaz bi ci la bokk li fi indi zircon bi ci la bokk li fi indi or bi sabodola ci la bokk li fi indi jamaa yi ci la bokk kon nag li may wax mooy doom doomi soxna yi ma ne jànkati tubaab yi lënkoog tubaab yi war nañoo sédd daara yi ak sëriñ si li ñuy dajale ñoom ci ay milliards di ko denc ci banque suisse ak euh, Monaco euh, feneen ak feneen buñ ko jóoroon ci réew mi kenn du chômé kenn du xiif kenn du mar waaye li ma gis mooy doomi soxna mooy génn dem ci biti jële fa ay milliards ñëw dugg ak moom ci réew mi tasaare ko fi waaye du ko dénk tubaab yi takkal ci nit ñi ay soxna yóbbu ci nit ñi màkka may jëndal leen ci ay kër tabax ci ay daara tabax ci ay jàkk ak ci jumaa waaye duñ jël xaalis bi di ko dénk tubaab yi ñoom ñu defaree ko ci seen réew yi kon bu ñuy wax patriotisme wala nationalisme doomi daara yi ñoo ko am ñoo bëgg réew mi loolu nit ñi war nañ cee bàyyi xel cër bi leen war a jox des na te ñoo gën ci nit ñi hàddiya la